musique, meilleurs hits, détente, dédicace, sorties, astuces, conseils. Du lundi au vendredi de 14h à 15h30 avec Géla. Vous écoutez King Détente avec Géla. sans autre but, plus de passer de King Détente sur King FM 99.4. sama yaay dil maa yow lay seet ngeen nga doon Bonjour le Monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est mercredi, vous savez, c'est mercredi, non Si je ne me trompe pas, bien sûr, parce qu'on a l'habitude, euh, quand quand, il y a férié, on a l'impression que c'est lundi, mais c'est pas lundi. Aujourd'hui, on est mercredi, demain 2018. Alors bienvenue, chers auditeurs, bienvenue dans votre émission King Détente avec Gela pour vous accompagner jusqu'à 15h30. Alors aujourd'hui c'est mercredi et d'habitude les mercredis nous accueillons des invités. Alors aujourd'hui on a un grand monsieur qui est avec nous, il s'appelle euh, Joe Alors euh, il est avec nous et il va faire du live tout au long de cette émission, les 1h30. On sera ensemble avec vous pour vous pour parler un peu de lui, pour parler euh, voilà de sa musique et puis pourquoi pas nous jouer des morceaux vraiment qui va adoucir nos cœurs parce que tout simplement nous sommes dans des tentes et ne l'oublions pas, nous sommes dans des tentes. Alors j'espère J'espère que vous avez passé un bon fête, une très bonne fête de travail. C'était hier, le 1er mai. J'espère que vous n'avez pas trop, vous n'êtes pas trop fatigué et que ça s'est bien passé. Alors euh, voilà, on a dit nos doléances par rapport au syndicat, tous ces tralalala. Vous, vous connaissez quoi, les paparazzi du 1er mai. Alors euh, avant de continuer, j'aimerais bien dire bonjour ou bien avant de dire bonjour, je vais laisser découvrir euh, la chanson de Jao Diop et puis on revient pour dire bonjour à Jao waaw waaw naw naa la daay ku am sa chéri boy nan la koy waye ma la bëgg bi moo tax ma lay waye ku am sa chéri boy nan la koy waye ma la bëgg bi moo tax ma lay waye sa chéri you're my lady I'm ya isa mulunci mulunci sa mulaci mulaci sa sun yi tara lëpp xam naa ki nga doon bese naa sa poids sa jar nga ko sama lëpp mu jàpp sa lëpp ci poñ dara fere ju ko xam nga chéri koko yaay sama baby ni ma la bëggee ku mu neexul di nga sonn fatigué ndaxte yaa ma a ma la gën a kaay dugg àjjana yaay sama chéri Férès sama banana sama coco mandarine chéri na moo dara

ten, ten, ten, ten, ten, ten. I said the same I said the mala damanal, eh, kanga ne foog nga doxantu si doxantu si saa nga doxantu si dama lay wane foog nga doxantu si yow nu la neex ngay solo xam nga danga rafet nu la neex ngay solo xam nga danga joli dama naan doxantu si foog nga doxantu si ay waay dama lay wane foog nga doxantu si doxantu si yaayam ba doxantu si dama lay wane foog nga doxantu si yow nu la neex ngay solo xam nga danga rafet Ah, c'est magnifique tout simplement. Magnifique. Alors il est exactement 14 heures passées de 12 minutes dans les studios. Alors euh, dis-moi ciao, bonjour bonjour là. waaw Non, def le lutum. <laughs> ça va Alhamdulillah, sainte God. Y'a ngi si bu di bu temps? dans les ondes radio, yek, télé rek gis euh, tout d'abord, nous, ah. uh-huh. tous les auditeurs et auditrices. de la uh-huh. King FM. Uh-huh. Euh, di leen wax ni kontaan naa ci teew tey di leen ziar ku ci nekk fi nga toog ma fekk la fa jox la loxo. Mhm. jox la sa wàccuwaay. Mhm. Euh, Diaw Diop c'est un artiste c'est un jeune artiste. Mhm. sénégalais. lead vocal de cette Melody Bond qui a commencé la musique ici même sur la TFM. dans l'émission Relève. Relève c'était en 2010 2011. après bon. Mm-hmm. on a déjà notre orchestre et on joue un peu partout. Mm-hmm. mais bon nous avons préparer un album là nous la single bu le chum annoncé suñu album. annoncé album mm-hmm. alors Joe euh, euh, Job, bu euh, dañ dañ R&B dañ hip hop mais dañu jékki que rek fait ci Bon, parce que tu a un style de musique boulay bercé. Effectivement. Au début, c'était l'R&B, tout ce qui mhm. est slow et tout ça. Parce que bon, mhm. étant jeune, dans les télé, il y a une influence moi. C'était l'époque de Akon. Je me rappelais à mhm. l'école de Akon. Akon. Parce que je reprenais souvent les sons de Akon. Et bon, je me voyais dans ma tête, je me disais que d'ici quelques années man maay nek numéro 2, Ouais. <laughs> un peu partout voilà. Uh-huh, uh-huh. parce que c'était cette musique qui me berçait. Mm-hmm. mais bon au fur et à mesure ngay gëna évoluer évoluer la musique parce que comme j'ai dit j'ai mon orchestre. Donc mm-hmm. da tu fais de la variété tu joues un peu partout da ngay commencer am une maturité musicale mm-hmm. de ce fait. Euh, li ma gën a ci musique un artiste tu dois pas te renfermer ci un style. style musical parce que musique feeling la. kon pourquoi bo tu ben feeling ou. Eh, def slow wala nga def mbalax wala dara nga bañ ko xañ sa bopp parce que mm-hmm. tëj sa bopp ni benn style rek laay def dëgg la non non parce que buñ xolé ci yeen animateur yi. Mhm. yow la style yëpp ngay animer oh, waaw parce que public bi lay déglu yëpp lañuy ñuy déglu. kon pourquoi artiste yi di fixer sen bopp. bop mhm. lolo waral bi ñu amee yëg-yëgu def mbalax. Mhm. ñu def ñu daal di koy def. alors Diop Diop dañ nga wax waxu Akon alors que cette émission euh, les mercredis King Détente c'est vrai qu'on se détend mais dañu bëgg live dans King Détente dañu bëgg guitare bi li daw bu dee piano ngay joué loo ti jouer dañu bëgg muy daw ñuy déglu musique bi di déglu voix bi parce que nañ waxanté deug c'est vrai que single bi dal na ñu bëri xam nañ ko am na ñoo xam ne tamit xamuñu ko donc euh, ce serait l'occasion ñi nga xam ne xamuguñu Diaw Diop ñu découvrir cette cette voix mielleuse voix bi nga xam ne c'est extraordinaire alors ñu dem ci benn live icon. ñu xool

Ça va bien. Et toi Ça va. Yaa si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. yow noo tudd ak foo ñu woowee. ndey mi laa tudd Jaw Jóob laa bëggoon na jot. waaw mu ngi lay dégg. da waxal ak moom maa ngi lay dégg. Jaw Jóob na nga def. ça va alhamdulilah ndey ça va yaa ñëwoon si anniversaire Magi Taa ah yee. <laughs> ça va alhamdulilah maa ah wuyu bébé bi Maguette. Ah, ah. allo bébé Maguette. Fadio Diop. jërëjëf. bébé Maguette. kontaan gën a kontaan sa anniversaire neexoon na. waa yàlla am avenir bu baax. bébé Maguette. merci. Ah, def. allo. ah, ils sont partis, ils sont partis. Alors, euh, on va continuer notre, notre live avec Jao, euh, Jao ñu Nous la live It's so long that I haven't seen your face. be strong. Would you taste my heart? They're washing away. Gonna be long before I get you by my side. And I stood up ways you think stay. Wash my. I wanna make up, nah, nah, nah, nah. I wanna make up, nah, nah. to link up, nah, nah, nah, nah. I wanna make up, nah, nah, nah, nah. I wanna make up, nah, nah, nah, nah. Guess we never broke up, nah, nah, nah, nah. We need to link up, nah, nah, nah, nah. Hey, con yo la le teca. Hey, hey, con yo la le teca. Wow. Yakin nan ko di ka wayan tu. I, wanna make up na na na na I wanna make up na na na we never broke up na na na na we need to link alors alors vous l'avez compris en tout cas c'est magnifique c'est ça King Détente euh, dans King Détente live artiste jouer

waaw fépp lay dugg. waaw voilà. Thiès. Mhm. Mhm. di leen wax ni nag nañ waajal maa ngi ñëw. yaa ngi ñëw incha allah yaa ngi ñëw am naa fa ay date dinaa def teew. di nga def teew. Mhm. xaaral ñu jël auditeur bi si ligne bi allo bonjour. allo. allo. oui bonjour soxna si na nga def. ça va et vous. ça va bien merci noo tudd ak fa ñu woowee. Mariam Diallo Padois Buldeuse. Mariam Diallo Padois Buldeuse di nga bëggoon participer si émission bi oui j'aimerais passer en direct sur euh, l'émission de Gela. oui mon ngay Géla, ni Gela chérie. d'accord Gela tu vas bien. ça va je vais super bien et toi. waaw je bëggoon passer en direct. Oui, je en direct chérie Coco tu es en direct. d'accord ok. En fait, euh, Diop, c'est mon jumeau. Mhm. Ça, c'est sûr. Elle, c'est ma jumelle. <laughs> ah bon Ouais. <laughs> D'accord, oui. Donc, euh, vraiment, on va très bien. Mm -hmm. gentil, machallah. Waouh donc euh, on lui souhaite euh, une très bonne continuation. Mhm. merci léegi nag la daf la nax. kan daf ma nax. daf la nax. ah Akon bi la wayal wax ko na la wayal noo moo yu Akon. ah non moo ah kon joxuma bu baax bi triant la. <laughs> dégg nga Mariam nee na ma bu baax bi kon nang ma jox bu baax bi yow nang ma jox bu baax bi suñu paré ñu wat ci Akon parce que neex na torop n'est-ce pas waaw. allô. allô jumelle comment ça va. ça va et toi nice ni cool di la namu Gelaté dama ñëw rek mu mak ak kan moo fi wax waxu Akon de dafa ma bett quoi mais franchement on te fait une très bonne continuation merci merci beaucoup Yo, c'est jumel nga comme d'habitude mhm. inshallah léppay merci Content ci allez à très bientôt allez merci beaucoup merci beaucoup Mariam allez au revoir merci beaucoup Mariam du depuis Padoa Buldeuse c'est ça mhm. nee jumo jumeau Diaw Diop le gars Diko alors 88 628 99 90 si vous voulez avoir Diaw Diop en direct ou bien participer à l'émission King Live nous allons l'auditeur auditeur bi ligne allô bonjour Allô bonjour. oui c'est bi nga def. ça va maa ngi sant yàlla macha allah. asking bu asking bu ani waate ngeen ci yow. waaw ñu ngi sant ngi si jàmm bu baax. waaye saw alhamdulilah. alhamdulilah da bëggoon wax ak euh, suñu invité bi tey. waaw waaw waaw man xaw ma ko sax. dama doon déglu ki nga gàttant bi rek. waaw. mais voix bi moo ma impressionné. moo la impressionné. waaye vraiment. Mhm. waaw fi jàpp foofu la. foofu la. waaw mais nag mais nag bu ma sañoon. Mhm. mu jege Prince Art. mu jege Prince Art. waaw waaw. waaw boo ko defee lu muy yóotu si musique dina ko am dina ko am bu baax a baax. waaw parce que voix baa ngi ci talent baa ngi ci. dëgg la dëgg la. waaw mais soo ko bëggee exploité. dafa mhm. am fooy dem pour exploité ko dëgg la dafa am yoon. waaw man daal loolu laa ko digal xaw ma ko nag. Mhm. mosuma ko gis. dëgg la. maa ngi koy a dégg léegi. Mhm. mais daal dama ko yéene loolu. da nga ko yéene loolu. merci beaucoup. waaw neex na mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg bu baax Diaw nga wax ak moom. maa ngi lay dégg merci beaucoup merci ci conseil yi. merci beaucoup loolu daal laa la yéene parce que da nga wax rek. Mhm. da nga woy rek. waaw moo raamu couche ma. dëgg la merci merci. waaw parce que bëgg naa ko xam ne foofu nga mën a woo li nga mën. Mhm. Mhm. waaw mais doo leen jàngee rek di nga kontaan. incha allah. incha allah kooku moom conseiller bu ma ok merci. ok jaajëfal bu baax merci beaucoup di big up waa Tëngéej yëpp nga xam ne ñu ngi nekk à mention très spéciale waa këri kaw waa on n'oublie personne waa Tëngéej ah hein. bu ba bu alors Diaw ñu dégg euh, auditeur bi daal di lay jox conseil. Mhm. Euh, da lay dee di arrivé parfois euh, que nga nekk en pleine émission gars yi di la woo di la jox conseil ki nee na c'est la première fois ñu dégg la. oui oui te jox na la conseil oui oui. Mhm. Euh, bon conseil je me dis que. ñu jël auditeur bi tey euh, ligne bi dama koy bonjour Allô. Allô. La femme ni dem na ah il est parti amul un problème après dinañ jël euh, Kenen ku ci top waaw jaw on disait. Wa je me dis que conseil moom ak bu mu mhm. tu donnes. Mhm. conseil il donne quoi. tu prends acte. Voilà. nga jël ko parce que ki la yéene ba conseiller la rek mhm. yéene ne la ko te gis nga dégg nga li mu wax dafa am lu ko touché mhm. mu am yéene mhm. kon loolu rek yëg-yëg la boo xamante ni mënuloo ko fay nit ñi dëgg la donc di leen wax ñu ñaanal ñu rek waaw dañuy doog a ñu ñaanal ñu yàlla baax na ndax mu jëm ci kanam ndax mu jëm ci kanam alors dañu déglu léegi nii nga wéyal ñu naanaana icon gars yi woote ne lu boobu du bu baax bi léegi dañu lay bàyyi nga dolliwaat ñu no bi dolli can't believe it no more you with no more you just one look in the mirror and I know I don't like the same being alone I don't like the same but that you on my own I have my time no no no no no with no more you to see me through I'm on you, what am I gonna do? With no more you, I can't believe with no more you. With no more you, what am I gonna do? With no more you, I can't believe with no more. magnifique magnifique chanson alors euh, ñu contente pour baax ci No More Like You bi nga xam que mom la woyal ñu jëlaat auditeur bi ci ligne bi allô allô allô allô oui alaykum maaleykum salaam soxna si nga def. maaleykum ça va bien. soxna si noo tudd ak foo ñu woowee. Khoudia Faye laa tudd. Khoudia maa ngi wootee Pikine. yaa ngi wootee depuis Pikine. waaw ñu ngi lay déglu Khoudia da nga bëggoon participer ci émission bi. waa Diaw laa bëggoon waxal. mu ngi lay dégg. Diaw <laughs> naka mu man la Khoudia. Diaw euh, Khoudia mooy wax ak yow. Eh, allo maa ngi lay ziar bu baax. waa maa ngi delloo ziar bu wér kontaan ci woote bi. waa maa la gën a kontaan. Mhm. <laughs> di ñaan yàlla rek. yàlla la fa lay jot li nga bëgg yaa ko xam. amiin yaa rabbal aalamiin vraiment nit ku baax nga vraiment. Il y a la bokk. Mhm. Ah, nga nekk nit ku baax ouvert. Mhm. Ah, à chaque fois même personne de la ñuy gis. Mhm. ñu yàlla nga continuer yàlla na ko yàlla amiin am ci lu vraiment single bi moom ñëpp neex na ñëpp macha allah. album bi ñaan na na ñëwee ni mu neexee incha allah incha allah <laughs> vraiment naa ça fait plaisir content bu baax. sama Allô ah dafa mel ni dem na de dafa mel ni dem na alors euh, ñuy jaajëfal bu baax ki nga xam ne mooy xujj tey jaw euh, téléphone bi du noppi. boo toppal ligne bi duñu <laughs> duñu avancé <laughs> xaaral ñu jël kii après ñu top, ñu continuer Allô, oui bonjour. Allô, oui salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na nga def. maa ngi fi rek yéen a ngi si jàmm ba. ñu ngi si jàmm bu baax a baax noo tudd ak fa ñu woowee. maa lay woowee Maris Aliou ah. Badara. Mhm, Aliou Badara na nga def. waa Diaw Diop laa bëggoon a xam. waaw mu ngi lay déglu bu baax jàmbaar ziar naa la. Eh, Mr Diaw. Eh, Mr Alioune. naka mu nice. nice ni cool. waaw ñu ngi lay béggee bu baax gaan Baye fii la ëppee di leen ziare. di leen souhaiter bon courage ah. merci beaucoup. foofu nga teg sa tànk foofu la quoi incha allah affaire yi dina ñëw quoi. incha allah merci beaucoup. waaw waaw loolu dama ne woon naa woo rek pour ziar la béggee la kontaan naa ci bu baax. di di yëpp gars yi lay béggee waaw kontaan ci yéen kontaan ci yéen didiste yi ñi nga xamante ne ma seen fay aw ma seen fay. tous les didistes.

auditeurs yi nga xam ne ñooy woote ñi nga xam ne bëgg nañu big up euh, follow ki nga xam ne mooy Diaw Diop ñu ngi leen di remercier bu baax alors tout à l'heure il y avait Pape Cheikh qui est à l'écoute Pape Cheikh Diallo mhm. euh, ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare di ko wax na gars yi namm nañ la bu baax a baax ba mu <laughs> mu gaaw dellu si heure bi nga xam ne mooy King Feeling euh, ñu koy jaajëfal bu baax merci beaucoup Pape cher alors Diaw ñu continuer wax si yow tuuti rek Diaw kañ nga commencé musique bon comme tous les autres, hein, depuis le tout début, mhm. dama donne chantonner à l'école parce que j'aimais chanter. Mhm. je me rappelle le mu télé automatiquement. je mhm. après je me sama commencé je capter facilement. Euh, amour bi di grandir. mais bon vu que mon père il est gendarme. Mhm. mon beaucoup woon ci musique bi. waaw waaw gëm xam l'école affaire service yooyu teg ci programme. <laughs> dëgg la. <laughs> donc dama doon sàcc parfois. Mhm. Euh, dem di wayantu wala bu ay fural amé ci koñ bi. Uh-huh. ma dem fa di fecc. Mhm. temps boy quoi. waaw mais par la suite euh, amour bi di grandir ma doon wayantu nak mais c'est en 2010 2011. Euh, waaw ba émission bi euh, TFM. TFM waaw. je me mm-hmm. rappelle je faisais la terminale. Mm-hmm. ci lañ ma woo sama benn copain bu tudd Chaka moo ma inscrire. Mm-hmm. ma ñëw participer ci émission bi bokk ci ñi sélectionné ci casting bi. def émission bi ba final. waaw. après foofu nak bi ma paree après l'émission tu la commencé di am ay fans un peu partout ñu ñi di la mhm. euh ay Mauritanie fu nek quoi di la wax maay sa fans. Mhm. ñi ñi commencé di aimer samay page et tout ça. Mhm. après là mo commencé dugg ci musique bi mais pas trop à 100 pour cent. parce que bon il y avait les études à l'école et vu que j'avais pas trop. Euh, la possibilité ma def musique bi comme ni ma ko donc dama ci donne ñamantu de gauche à droite parfois moi jouer sa guitare dem jouer bon nous ni di ma laaj samay soxna. Mhm. et eh, bon vu que on n'avait pas les moyens. moyens pour pour. Euh, da ngay dem jël ben bit yi ñu ko téléchargé. Mhm. nga jël ko dem fay dix mille wala quinze mille. def benn prise de voix ci studio yi. après on va le partager. mais c'est à partir dès que j'ai voilà au mhm. moment où j'ai rejoint carrément l'orchestre de l'université. ba nekk lead vocal bi. waaw commencé à prendre les choses en main donc on peut dire en quelque sorte c'est mon parcours de musique non le demee mhm. mais ces deux dernières années j'ai commencé commencé mettre sur pied orchestre mhm. et j'ai commencé à tourner avec mon orchestre dire carrément les choses mhm. au sérieux parce qu'après le bac après pas j'ai commencé être flexible un peu Wow. parce que un bac ba pareil. c'est ça D'accord. nous <laughs> ñu que si ce groupe euh, mélodie dañu gis ne que dafa bëri ay étudiants. Mhm. lan na demee noonu groupe étudiants yi ñoo formé wu qu'est-ce qui s'est passé lan moo tax nga am groupe d'étudiants boo xam ne dañuy tëgg ñii di ñii di ñii di guitare ñii di kii ñu gis ne groupe étudiant la. oui parce que ak groupe comme li ma la wax. Mhm. affaire bi mu ngi démarrer à l'université ci la ñëw ma doon lead vocal bi donc pratiquement l'orchestre est composé d'étudiants. tey même orchestre boobu nekk université moom moo continuer ba tey nekk sama orchestre. dëgg la parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ. Mhm. et on avait une passion qui est la musique. Mhm. Euh, ñu ko doon partager en dehors des études. c'est-à-dire mhm. comme ni gars di allier musique. ak euh, euh, sport étude noonu la allier musique ak étude. mais li ñu bëggoon exactement de par l'orchestre des étudiants. demeewul woon noonu carrément. parce qu'on avait amon nañu salle joxon nañu matériel yépp mhm. li ci war ñuy répéter à temps plein. Mhm. mais amul won benn suivi. dëgg et je pouvais pas à ce que ñu tok fofu continuer di. répéter di répéter di jëmale déwén. bu mhm. concert amee université ba université la ñuy joué. ñu am ay programme peut-être ñi ñu diriger appuyer wuñ ci carrément comme ni ñu bëggoon les choses tardaient à décoller par la suite nous on a pris notre destin en main. Nous, le affaire que def ko suñu yëfu pour, mhm. parce que jusqu'à présent c'est nous l'orchestre de l'université. Mhm. mais vu que les choses bu comme ni mu rouler ça ne cela ne nous empêche pas. Mm-hmm. ñuy def suñu petit bonhomme de chemin. à côté effectivement donc pratiquement looloo waral orchestre bi pratiquement a ay étudiants lañ. a ay étudiants mm-hmm. ñu gis sommes euh, Diaw Diop amul son boobu rek ñuy wax lucum lucum am na yeneen son am na boo xam ne ngi woy un enfant un cadeau. Mm-hmm. am na boo xam ne ngi woy euh, Mr Melody. am na booy woy du tax ma ba. Diaw da nga bëgg mbëggeel yow sa woy yëpp bëri na mbëggeel ah nu mu non mais Angèle àdduna lépp mbëggeel la <laughs> tey yow émission bi ngay def nii sax boo amuloon amouru passion bi pour ñëw nii doo ko def. dëgg la dëgg la j'avoue. tey baykat bi. Mm-hmm. ci tool bi muy bay bu ci amul amour. du mm-hmm. bay. dëgg la yàlla bóor bi ñu sàq. Mm-hmm. soo amul mbëggeel. ci moom cofeel ci moom. du dem sa jaamu dara du dem. dara du dem kon nit ki mënul àdduna la vie c'est Moi, souvent qu'est-ce que je dis oui. parce que la vie. Mhm. c'est l'amour quand tu chantes la vie. tu chantes l'amour quand tu chantes l'amour T'as tout chanté. T'as tout chanté. Les nous d'Outarma euh, Babi. Mhm. Après, on va revenir. Une petite page musicale et puis on revient. Si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission King Détente avec Gela et notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Jojo pour Mr. Melody. Les nous deglo Et puis on revient.

Si de bouger nga jóg ni da nga may gunge eh. ma mer ni la yamal fii waaye li ma tontu moo ma naqari wax jooju moo ma xëy ba ba ci su gënee nga jëla buntu kër gi ok oh, oh, oh, oh. man sonn naa su la neexee nga jaani ma su la neexee nga xas ma bu la neexee nga bàyyi du ma ba du tax ma ba su la neexee nga ma tax ma ba bu la neexee nga ma tax ma ba bu la neexee nga baajin ma du tax ma ba du tax ma ba noonu xamatuma woon yoon bi fi may jaar man ba war a ñibbi yegg si wax ko sama gaay yi mer mer ba dañu ma mujj jéppi wante ñoom dañu xamul ni ma dal ni man mi la gën metti ci dañoo umpale ni mbëggeel ni mu neexee noonu la métte teg sax su la dalee moom ma di def moom daf lay dicté mu neex wala naqari te di nga ko appliqué ndaxte gi ma ko fàtte jim naa jim ba mujj découragé chaque fois daf may gën a manqué ca dëgg dëgg mënatuma ko détesté su la neexee nga jaani ma daa ma ba su la neexee nga xas ma daa ma ba su la neexee nga bàyyi ma tu daax ma ba tu daax ma ba su la neexee nga jaani ma daax ma ba bu la neexee nga xas ma daax ma ba bu la neexee nga bàyyi tu daax ma ba tu daax ma ba non non non non non man sonn naa oui, une très belle chanson de Jojo qui nous chante euh, Doutarmaba, Blanekheng Gandima, Dorma Dourma, Doutarmaba, alors 14h passées de 39 minutes, toujours dans les studios de King FM avec Jojo et Gela dans King Détente. Alors, euh, Joe, Ba tax Gandima baax Dorma la nga inspiration de fu euh, balaa ñuy continuer <laughs> bonjour Allô. Allô. alors 88 628 99 90 vous voulez parler avec votre star Djao Djao, vous bien participer à l'émission nous sommes toutes oui alors Djao, l'autre ma bon d'abord comme je disais la vie c'est l'amour. Mhm. te des fois dinañ matante mais mhm. mënuñu bàyyante dëgg la parce que ñaari nit su ngeen mënul bàyyante da ngeen di jàppante mhm. est-ce que xam ne ma la la beauté de l'amour c'est c'est euh, des fois muy neex mhm. des muy metti des fois nga ñëw jooy ci kaw mu nax la des ngeen am problème mu mer jaaree nga mer mais tey xuloo dafa neex. parce que bu xuloo amul woon jiboo du am. <laughs> te jiboo dafa neex. jiboo dafa neex dëgg moo tax ma ni bon nit ki bu ngeen nekkee ñaar foog nga koy comprendre. Mm-hmm. parce que relation foog am kenn kuy tànne moroomam. dëgg la pour nga mën a flexible parfois ngeen. Mm-hmm. am yenn divergence yi mais teewul nga ñëw parce que boo bëggee bul bàyyi. dëgg la. parce que je me dis que ben affaire bu naqari. Mhm. warul tax nga fàtte li neex lepp dëgg la kon way bi mhm. bon personnellement dama koy may. Mhm. un ami. un grand ami. bu tudd Ibou Touré. bo xam dafa am ku mu bëgg ci xolam. des fois yenn divergence yi dina am mais il y a toujours l'amour qui reste. tu vois un peu ce que je veux dire. Euh, oui oui je vois. c'est un conseil bu ma koy jox. Ibu bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi yow mi yow bul bàyyi mbëggeel dafa neex yaay góor jigéen dañ koy yërëm yow bul bàyyi Ibu yow bul bàyyi bu la neexee mu jaani la bum tax nga ba bu la neexee mu xas la bu mu mu bàyyi la bum tax yow nga bàyyi ko bum tax yow nga bàyyi ahaha bum tax yow nga bàyyi ko bàyyi Une très belle chanson. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Boltar Mabaye. En tout cas, conseil Nkodjor, conseil baguette Bobagé, Dobaye, comme Ninka Waké, Djodjop. C'est comme ça. Mbagil de Fameti, de Fodaiwa, mhm. Hama, des fois Mouner, des fois Mounakari. Non, la démé. Alors, nous devons nous coucou, Ninga Hamne, Nungti page Facebook B. Euh, Mustapha Wilan qui nous dit courage pour ton invité. Le chemin reste encore, mhm. mais seul Dieu est fort. Alors, Binet Goudjabi, euh, Lena Gassama, Djibindjaye, Nungay Djadjefel, Dila Dalal Boubar page Facebook mais j'espère que bien dit a ci job euh, big up bu mention très spéciale à vous alors ngeen que toujours dans détente avec euh, Diop euh, xam mélodie bande jaw ñu gis ne nga bi moy li nga ne lancer album bi c'est quoi le projet lan projet c'est quoi la suite. ok la suite je me dis que ça fait un moment. que nous avons ci musique bi. Mhm. créer tech mhm. donc là voilà comme les mois ne nous permettaient pas dès le début de commencer. Mhm. tech. là de par les lives qu'on est en train de jouer. nous avons commencer du tech donc l'idée c'est de sortir un album. Inch'Allah euh, de Nanko ko jàppaguñ dat nag. Mhm. mais pratiquement avancé nañ ci parce que depuis daaw ba léegi ci lañ nekk. Mhm. Euh, Luccum bi moom moo nekk single bi nga xamante ni moom mooy annoncé album bi. Mhm. parce que voilà dañ ko waroon génne après les grandes vacances. Euh, après le ramadan, j'ai mm grandes vacances. Mhm. Mais jusqu'à vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, on avait du mal à gérer, mhm. à, ne pas donner la chanson parce qu'après, ils mettent ben en rupture, trois mois après pour Jorlen le son. Donc, de ce fait, nous avons le single. Nous mhm. commençons à familiariser en attendant, après le ramadan, une avons vidéo. léegi euh, ci grande vacances yi am ay surprise nag yu grand yu leen di dencal. Hmm. yoo xamante ni incha allah daal nañu préparé te xam ni. Uh-huh. mu ngi ñëw. mu ngi ñëw daal en en force. affaire yi ay buum buum lay doon. dina leen dal ba ñu yëg ko <laughs> ba ñu yëg ko léegi dañu bëggoon nga may ñu tuuti rek ci album bi à part Luccum Luccum ba na ci topp am di nga ñu may benn affaire bu sew sax bi nga xam ne que ci ci kii bi la bokk ñu jéem a xam lan mooy lan lan la ñuy xaar quoi ñu am tuuti aperçu sax sànni ñu benn affaire ñu sànni ñu benn affaire la xam li ma métti mooy tey ay question yu ñu bi parce que son bi ñu laaj man xam naa ko. Mm-hmm. mais nañu bàyyi ba album bi mu daal. may ñu tuuti rek xam nga live ak kii bokkul may ñu tuuti rek yow tamit jaw tamit aussi ah, mm-hmm. mm-hmm. xam naa ni moom mooy. Euh,

ñeenti bët tase sama riiru xol stoppé ci laa xam ni gone gi def na ma effet ngelawu mbëggeel di ma ëpp bànneex di fëgg sama bunt ci la yëg ni nobel gane si na ma man ak yow war ne ngir sama xol bi ne ci feet ah ah ah of summer wet. Maniola done said, my baby, you're You're Uh huh, but yamwe dane. Aha. Batag na sama tama gaan zitten jakobare. Eureka is het te makkelijk, joh, maar denk aan àdduna bi li ci biir yaa ma gënal yaa rek bu nekk la la jaral eh. yaa ma jaral ba tax na woo woo eh. ah, ah, ah, eh. yow rek jox naa la sama xol bale ko di la toppatoo bul ko fowee jox naa la sama xol bale ko di dab sa bànneex Muốn come phố về con cái gì mà Will you my baby girl When eh? you line love you will be my. Will you my baby girl When your line love Samatama kon si tegi yakawaran Yow rek Gisatuma kudul yow man dengam man àdduna béeg li ci biir yam ma gënal yow rek ku nekk la la jaaral man yam ma jaaral yow rek sama tama xol si dëgg yàkk waral yow rek gisatuma ku du yow man de nga ma yow àdduna béeg li ci biir yam ma gënal yow rek ku nekk la la jaaral man yam ma jaaral yow rek xoolal xoolal ma lu rafet lii lu nice lii nga bëggoon ko xëñ ñi nga xam ne mooy auditeurs yeeg auditrices yi non mais attends Diaw yow tamit ah dañuy may genre yi xaar yu jël auditeur bi ci ligne bi allo bonjour allo. allo. salaamaaleykum sëñ bi nanga def. ça va sant yàlla ak ah, noo tudd foo ñuy woowee. da ngay bi. ah da léegi foo ñuy woowee. ma lay woowee Dakar. Dakar waaw oh, Dakar am na 19 communes eh, waaye am benn problème. <laughs> commune numéro numéro 2. di wër deuxième commune. ah xaw ma deuxième commune ban la de waaye am na 19. communes daal un Gorée la deux plateau la. ah pla waaw ah, kon plateau nga ñëw woowee Dakar plateau ok kon <laughs> yes. ça va <laughs> ça va très bien et toi. tout d' abord ñu ngi rafetlu sa émission. très mm-hmm. régulièrement dañu la déglu. merci beaucoup. dina amee jëf. dëgg la. sa nekk moo tax ñu woote. waaw dëgg loolu xam naa ko. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal. Mhm, mu ngi bu neex. Ah. bàyyi ko mu doxal. mu bàyyi ko mu doxal. <laughs> waaw donc da ngay kii rek nga ni ko noo jiwal. jaw acca doxalal. <laughs> Mhm. ko defal lii mënuñu lu neex. bàyyi leen ma dem et que souvent bu ñu ko bàyyee mu dem danañ am lu bëgg. dëgg la dëgg la. donc ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal. Mhm. amiin amiin di ko ziar. ko wax ni bu mu yàggam. incha allah. Mm-hmm. donc lépp dina ñëw lancé bi nekk na continuer. dëgg la. xam nga. mën na bëtu rek bu gaa yi xam fu mu laa koy wax en public laa koy wax na na bëtu. na na bëtu. allah danañ ko gunge. Mm-hmm. donc pare nañ pour lépp nag. dëgg la. la gaa yi pare ah dañuy jël ci suñu wàll. da ngeen di jël ci seen wàll. waaw waaw waaw amul benn problème. duñ fi def duñ fi def lu fi kenn deful. Mm-hmm. kenn melul. dëgg la. mais sunu wàll li ñu moom danañ ko téye ci musique bi incha allah. amul benn problème. waaw danañ ko tey koy ñaanal bu baax. merci beaucoup. Oh, ok. waa Dakar Plateau. amiin beaucoup. waaw mais man loolu mooy bon wax amiin beaucoup. <laughs> merci beaucoup ma ne ko amiin beaucoup. <laughs> mots yi ñoo nekk di bousculer wu dans ta bouche. ça se comprend ça se comprend. c'est sûr que bu ma ñibbee tey moom lañ may rey. amiin beaucoup non amul ben, problème alors euh, Djibi Ndiaye. Issa ak euh, Degen Diop euh, nee na euh, j'ai la miss you bonne continuation su ma la gisee rek oral anglais BFM <laughs> la may fàttali non Degen <laughs> Degen di nga ma rey Degen fii nga fële tay <laughs> alors Diaw ñu gis ne Diaw day woy ci olof ñu gis ne Diaw day woy ci français ñu gis Diaw day woy ci anglais Diaw luy sa fort. tey bon bu boo nekkee xale. Mhm. man je me dis que tey ngay suivre ben actualité. ci mhm. musique bi. Mhm parce que léegi euh, musique dem ba fumu toll fo xamanteni c'est au-delà ay da nga nek géwél rek da ngay way mm-hmm. wala mu nek comme aspect traditionnel mm-hmm. légui musique dafa toll fo xamanteni je me dis que tay pour nga taxaw sax wax ñi ni déglu la mm-hmm. il faut que nga am bop bi wala nga am ben base bi le minimum parce que quand tu fais de la musique tu es devant les gens t'écoutent te ñi ñi lay dégg dafa am lo xamanteni dañ koy xaar ci yow dëgg la donc voilà il y a un minimum. Mhm. te tey musique bi fi mu toll musique sénégalaise. Mhm. ñun jeunes yi ñoo relever. d'accord la ñu ñu jiitu am na lu ñu fi def ba mhm. ñun li ñu bëgg relever il faut yenn barrière yi nga xamante ni moom moo bloqué woon musique sénégalaise. Mhm. ñun ñu dindi ko. mooy lan lan nga gis ne mooy barrière musique sénégalaise. d' abord tey il faut ñu nangu am benn ouverture mhm. bañ a yem ci benn affaire rek ne voilà Sénégal la ñu nekk on fait de la musique juste pour dem Sénégal. genre le mbalax rek. le mbalax rek waaw mhm. le mbalax rek non man nañ defar mbalax. mais ñu solol ko yére boo xamante ni dafay génn. tey gis nga les Nigériens ils l'ont réussi mhm. jël nañ seen afro bi mhm. ba tasaare ko un peu partout ci àdduna bi les américains jël nañ seen arène bi ak yeneen ak yeneen ñun war nañ mhm. mën a jël suñu mbalax ak yeneen culture yi mais ñu jël ko solal ko benn mbubb boo xamante day moderne parce le temps n'attend pas tey li xew tey du bokkul ak li xew suba tey jaw li muy woy tey bokkul ak li muy woy suba te gars comprendre benn affaire dañu dépassé léegi ci àdduna boo xamante ni non yow lii ngay def wala su ma defee lii ñii mhm. dañuy wax. dëgg la it's time just to make business. Mhm. business lañuy def mooy lan. Mhm. da ngay xool fi muy xasan nga wooxu fa. li ñu ñu soxla. nga def ko nga def ko. exemple bi gën a ndaw. te xoolal son yi cartonné un peu partout ci àdduna bi. benn terme la nit ki di jël di ko wax ay. dëkk ma deeb. Mm-hmm. Look at my, look at my dad. Yeah. Et ça me voilà. Mm-hmm. L'autre gars là, qu'est-ce qu'il a chanté? The thing that. Wow. Ta ta ta ta. Boum. Tu vois? Parce que ni tu toll nañ foo xamante ni voilà. Mm-hmm. certes mën nga yeete ci sa musique musique pour engager, yooyu yëpp mën nga ko def parce que il faut aller l'utile à l'agréable dëgg la mais aussi amna période bu ñu toll fo xamanteni ni ñi dañuy soxlo ku leen ni mhm. euh, ku leen ni fàtteloo seen yenn souci yi mhm. ñu am envie comme sa émission bi mhm. détendre dal di béggee xam nga en un moment ñu ñëwaat parce que pour pour le moment ñëpp am nañ benn conscience boo xamante ni xam nañ lu baax. ak lu xam nañ lu bon. donc di leen ko rappeler c'est bon mais aussi. des fois il faut que nga xam ni un artiste. li la war mooy avant toute chose. la musique c'est de l'art. c'est de l'art. l'art quand on dit l'art rek mm-hmm. kii le quoi il faut que nous sentir ci aspect artistique bi mm-hmm. donc tey yenn blocage yi bu fekkee dafa laaj nga woy ci japonais ci mm-hmm. chinois pour conquérir benn public il faut le faire il faut le faire dëgg la tey un nigérien nga bëgg ko làkk ci olof certes dina neex parce que musique mën nga ko làkk sax ci mandinke mu neex dëgg la mais tamit ki ngay woyal mu neex ko ba pare nga dugal ci beneen langue boo xamante ni da koy gën a approprié wu dafay neex quoi dëgg la

waa Didi mhm. les Didi yëpp ñu ngi may dégg. ñu ngi lay bu baax waaw. bon ki nga invité noonu. Mhm. Euh, man franchement mënu ma wax si moom quoi. Mhm. parce que su may wax si moom su ma xool day day day tooy quoi. dëgg la. billaay du ma ko yàggal. waaw waaye dama bëgg rek ñëpp xam ni. Euh, duñ ko jàppale jàppale Sénégal. ndax bu dul dara étudiant la. mu bàyyi teg ay diplôme am. Mhm. dugg si musique. Mhm. dugg si musique waaye dugg si musique boo xam ne kenn xamul musique lan la. lan la. Mhm. jaw jaw day laal fépp. day laal fépp jaw lépp day suy. donc ñu ngi jàppale tey dafa mel ni Sénégal lañu jàppale. dëgg la. jàppale étudiants yi. waaw jàppale jeunesse yi. waaw man loolu laa gis. ñëpp jàpp xam nga son bi instant yi mu ngi apone mu ngi toj mais xam naa ni jaw lu mu li nekk ci moo ëpp mm-hmm. moo gën a neex fuf lucum lucum mm-hmm. man xam naa loolu xam naa ko parce que maam moom yàgg nañ mm-hmm. xam naa li mu mën bu baax a baax donc mu may dégg waaw maa ngi tamit waa sama ñu El Sall ñoom Papa euh, ñoom Soso Mati Thiam PID. waaw li may dégg waa Cambérène. Mhm. Parcelles. Mhm. ñoom Rama Géejawaay. Mhm. bàyyiwuma kenn. bàyyiwuma kenn. bàyyiwuma kenn la wax ne seen président bon dugg na. Euh, dafa yéex a dugg nag. waaye waaye fàttewul leen. maa ngi nuyu ñëpp daal su ma limee sax damay juum. da ngay juum dëgg la. di nuyu tamit sama xarit mi ca Chaka. waaw. ok.

mais affaire bu garaaw Facebook beeg Snapchat beeg WhatsApp beeg fépp euh, jaww ñu gis gars yi luccum luccum xale jigéen yi sañse def lu rafet ku ci nekk tey sa téléphone teg luccum luccum di ko selfie. waaw ah, parce que dañ ci sentir seen bopp. Mhm. xam nga nit ki euh, li ngay exprimer wu yow foog mu dugg la. Mhm. Euh, mën a neex nit ñi. dëgg la je me dañ ci gis seen bopp rek. Mhm. moo tax mu waral ko. vidéo bu ndaw buñ defoon ci statut yi ñu jël ko mu circuler circuler donc ñuy laaj son bi mm-hmm. Mm-hmm. donc aw ma woon droit ma téye son bi xañ leen loolu il fallait que mu jox leen ko bon di leen wax ni son bi mu ngi noonu mm-hmm. seen son la parce ku ci nekk am nga sa lëccum lëccum nga def lu la neex waaw mhm. man maa ko adjugé yaa ko adjugé <laughs> ku nekk ak sa lëccum lëccum léegi balaa ñuy dem ci topp 15 heures bi 15 heures léegi jot 14 heures passées de 57 minutes toujours dans le studio de King FM avec Gela avec Jojo euh, dans King Détente Diaw nga may ñu benn affaire bu sew rek gars yi nee nañ fépp nga mënee way nga fi Akon way nga fi ce son way nga fi euh, ban ak ban may ñu benn affaire rek xam nga ñun fii dañuy def des fois karaoké les jeudis donc il Détente mais ñu benn sensation française rek ñu xol jaw nu mi démé ak sensation française ok euh, dama leen di compo dama leen di euh un de mes sons bu mhm. ma di composer ni aussi Thank mhm. you. Elle est capricieuse, des fois insupportable, mais elle est belle comme une rose. Ne pas l'aimer, j'en suis incapable. J'étais un bad boy et elle m'a rendu si romantique. Khalibi d'un fauteuil, elle a une beauté mathématique. Oh mon dieu, oh, quand elle s'énerve, elle crie sur moi. Je baisse mes yeux, elle a dompté le lion en moi. Je suis devenu so cool, so romantique. Elle m'a rendu si romantique. La m'a rendu si romantique. Elle m'a rendu si romantique. Pourtant, je serai romantique. La m'a rendu si romantique. elle m'a rendu si romantique. Pour elle, je serai romantique. Baby, pour toi, je ferai tout. Baby, pour toi, je ferai tout. Pour elle, je ferai tout. Baby, pour je ferai tout. C'est tout simplement magnifique, baby, pour toi, je ferai tout. Alors, nous revenons juste après le top de 15h. Merci beaucoup, Jao Toujours dans King Détente. Ah, juste après le top, nous revenons. 15h, King FM. Il est 15h, King FM. Il est 15h. Oh là là, un enfant, un cadeau. Oui, c'est reparti. Chaque enfant, un cadeau. Oulala, elle renvoie un cadeau. Oui, c'est reparti, chaque enfant un cadeau. Redonner le sourire à tous ces mondes de la vie, l'espoir de l'avenir pour une meilleure vie. Ok. Alright, alright. Alright, alright.

un enfant, un cadeau. Oui, c'est reparti. Chaque enfant, un cadeau. Ouh la la, un enfant, un cadeau. Oui, c'est reparti. Chaque enfant, un cadeau. Yeah. Pour donner le sourire à tous ces mondes de la vie. L'espoir de l'avenir pour une meilleure vie.

c'est parti chaque enfant un cadeau Lolo tamit nekone son bo xamné moko mom euh mu woy euh, un enfant un cadeau oui c'est reparti chaque enfant un cadeau c'était sorti en décembre. oui en décembre parce que bon euh, j'ai eu la chance hein, mm-hmm. de bosser avec les ONG les organisations yi nga xamné ne ñoo fi pour xalé yi. deug la. Euh, ku ci mel ni spécial olympique. Mm -hmm. gérer les autistes. Mm-hmm. euh, les enfants handicapés. Mm-hmm déficient intellectuelle yi mm-hmm. euh, ay école c'est pour les ONG en quelque sorte voilà mm-hmm. man personnellement je me suis engagé pour être l'ambassadeur des enfants mm-hmm. euh, les associations comme Pen Attitude ci l'as collaboré def son bi par le biais de Lamine Pen que je salue au passage. Mhm. parce que chaque année aussi dañuy organiser di ay cadeaux. chaque mhm. décembre pour xale yëpp am la possibilité. Mhm. Euh, ni ñuy gisee ci télé bi. décembre bu jotee ñuy jox ay yeneen xale cadeaux ñoom ñu def takk seen digg di liggéey de ce fait légui man sa buñu xewlé xewlee. Mhm. dama mon leen man sama contribution pour le moment du pour bu moment, mën a joxe wala jënd cadeau. mais j'ai ma musique j'ai ma mhm. guitare je peux composer je peux chanter pour les enfants pour les faire plaisir. Mhm, en quelque sorte voilà les lu nga que ça touche aux enfants. Mm-hmm. man maa ci nekk. ci mm-hmm. école yi nekk y a yenn centre pour xale mm-hmm. yi dans dama fay et je bosse avec eux. en quelque sorte je suis l'ambassadeur des enfants. des enfants musicalement en tout cas si magnifique wéy bi nekk wéy bu am sens nekk wéy boo xam ne toucher chaque enfant un cadeau.

Ouh là un enfant, un Parce cadeau. que c'est un autre style, quoi. Voilà. C'est un autre style. Bon, xamanteni gaay duñ ko faral di gis. Dégg, effectivement. Légui, il fallait que nous out ben style bo xamanteni dina fun, dina pop, xalé bi dina mëna bouger. Bouger, De manière mm-hmm. simple parce que bo xolé c'est comme mm -hmm. Ouais. Yeah. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Un mm-hmm. enfant, un cadeau. Oui, c'est reparti. Chaque enfant, un cadeau. Retourner le sourire à tous ces mondes de la vie, l'espoir de l'avenir pour une meilleure vie. non c'est magnifique c'est magnifique Diaw Diop gars yi que ci page Facebook bi ñu ngi des di euh, Y a y gens qui ki disait nee na da nga chaîne noo tu tuddee en anglais chaîne Non, ko waxee en anglais. chaîne Wa, bye bye, ñu jël auditeur bi. allo <laughs> allo bonjour. Allô? waaw na nga def sëñ Salut, ça va, j'ai là, c'est Mokhtar, le Vivi, le ah, de Mokhtar, comment tu vas, Yannis Diam toi, toi, mon, toi, je te dis rien. Toi, mon, je suis fâché contre toi. Tu m'as même pas fait des jeux anniversaires. Non, mais Mokhtar, arrête ça, Mokhtar. Comment tu vas, toi? Happy birthday to you. Nissan. Happy birthday ah, to you. Oh. Happy oh, birthday to you, Mokhtar. Happy birthday to you. Ah, ah, ça c'est magnifique yow Mokta, Muno, am cadeau bu gën reuy bi nga oui je suis content surtout je remercie Bintou du fond du cœur. ndeysaan ndeysaan ndeysaan Amine, amine, amine. et toi comment tu vas. Euh, Kanti, man wala toi Jela. Ah, ça va je vais super bien ça va je vais super bien. Ah, quand c'est bien. Bon, mon, anniversaire, mon anniversaire, ça a été, j'ai bien fêté, je suis bien abusé. Ah, con parle. kon cool il manquait ma maman Viviane quoi. ah ça y est, Viviane dina ko dégg dina ko dégg. dinañ ko ko ah, wax ndax mu def ah. déplacement def euh, dérangement. dérangement si si. Ah, pour Mokhtar Senghor. yaa chéri Bintou. ah chéri Bintou. Wa, dama koy dee di Wa, excuse moi Mokhtar Senghor chéri Bintou. oui kontaan nga oui je suis content. ok quand bah tu di nga bëggoon wax ak Diaw bougon noir wax. Ah, émission oui je voulais le saluer. Euh, mhm. le saluer hein. mhm. juste. lui dire comment je le reconnais c'est pas le fils de c'est pas le fils le frère de Momo hmm, non non c'est pas le frère de Momo Ah ok parce que je croyais que c'était le frère de Momo il avait il a même il a la même voix que Momodia. que Momo a la voix ak oui là là wàllu média. dëgg la dëgg la loolu c'est sa sa kii la sa sa li nga C'est waxatee. sa gis gis-gisam la ah quoi bon c'est normal ah parce que mm-hmm. ñoo bokk benn maam. waaw. Ah, ok, quand c'est bien, c'est bien. <laughs> Mais il faut, il faut faire des soirées, il faut te produire. Il faut mm-hmm. faire des soirées, il faut faire des, te produire. Mm-hmm. Non, mais si, hein, parce que euh, le 30 rec, Burkidem Moutagna King Fat Palace, moi, pratiquement, ah. bon, avant même la sortie du single, je tourne toute l'année. Je joué à King Fat Palace je euh, mangi joué dans les autres endroits ici à chaque fois je ah. me follow bu demain sur sama page Facebook ci ah, mon Instagram ah, souvent voilà dañ fa la fa la ñuy ëpp lu ñuy communiquer quoi mais ñu ngi tëgg quoi ñu ngi tëgg. ah ok ok mais incha allah Tahira il faut yaa ngi fi rajo bu mag bi yaa ngi yaa ngi fi rajo bu mag bi quatre-vingt-quatorze point zéro. mooy mooy rajo bu mag bi ak ak Jela rek. <laughs> Jela rek ak Bintu ak sama chéri Bintu dara du doy. dara du doy kooku mooy Mokhtar Senghor ñu koy jaajëfal bu baax. merci beaucoup euh, Mokhtar Senghor euh, auditeur la inconditionnel waaw ko xam ne du ñu bàyyi moom du ñu bàyyi du bàyyi

voilà je joue dans les hôtels comme I euh, King Fat Palace récemment le mujj def le show. Mm-hmm. voilà il y a gis nga ni mu mm-hmm. voilà en dehors de Ningudon ngi jouer euh, pratiquement ci almadi bi mais en dehors de là. Mhm. ñu ngi commencer di jéem a yenn projet ñu ngi ci job ak staff bi. Mhm. pour gën a dem wàcc ci population bi. def des mhm. voyages un peu partout ci Sénégal. wàcc ci banlieue bi ak yooyu yëpp parce que ñun on est de Cameroun. ci Cameroun Cameroun la ñu dëkk parcelle la ñu nekk. xam nga. dëgg la ñu ngi ñu dinañ dinañ gën a yaatal affaire yi. incha d'accord voilà ba ñu ci hôtel yi kese. allô oui bonjour. Bonjour madame. Ça va, je vais bien. Et toi, ça va madame <laughs> Maticham Babel Wakam. Naficham Yangisijam. Maticham. Mati, ah, Maticham, ok. Maticham, ah. Dalala Jam, si King Détente. Merci beaucoup. Mhm, da nga bëggoon wax ak euh, sa artiste. sama artiste bi waaw Didi. Wow, Mati. encourager. encouragé. Mhm. di la wax ne tous les didistes sont derrière toi. Mhm. merci. di la soutenir nag fu yam neex. ah oui. ndax ñun yow gëm wala. waaw kontaan ci yéen. Ah, dinañu neex. Dia samay doole. jeex na ñu ngi sa gannaaw yow bu ragal dara. inshallah amul ragal. ki ngeen jiital gaynde la du ragal. moo dañuy yëngal. <laughs> yëngal dëgg la ñuy def. Mhm. aha Alema bay Gaye ñu ngi ci ñu ngi ci ligne bi de. ah gars yi ñu ngi ci ligne bi ah, ñu ngi ci ligne mais content ci yéen ah kontaan ci yéen xajalate fii la ëppee. Uh-huh. ok allez. merci beaucoup. merci à vous. allez au revoir. waaw gis nga ni auditeurs yi jaw ah, gaa yaa ngi pourante si ligne bi. Mm. ñu bàyyi leen tuuti rek gars yi dugg en attendant nga tëgal ñu benn affaire ñu damati euh, nga génnee ñu feneen beneen style yaa am gën a xam. Je là tu n'es pas pour moi tu tu n'es pas là pour moi parce que je suis pas. alors nous allons auditeur mais après nous ñëwaat allô bonjour. Alaikum salam alaikum salam. soxna si Je vais def. ça va tranquille ça va Zeyla yow xam nga koy woote yow. ah Binette Goudiaby la ankay yi dama doon xaar dama doon xaar déggaat déggaat bu baax. Ah, dama rey. Binette noo def yaa ngi si jàmm. Eh, man Diaw Diop moom a woote. waaw waaw wax la ak moom lay dégg am benn problème. yàlla xam nañ daf ma bett je t'assure. dëggantaan. bilaay wallaay ba xalaat dëggantaan. parce que déjà xam nga ba nga ba ma nee moom war na xam ba ma nee gerte war na xam xam naa ko. jaw yaa ngi koy dégg daan na ko foontoo nag. maa ngi koy déglu bu baax. daan na ko foontoo. daan na ko foontoo mais yaakaar moo gën a yegg vraiment bett na ma. Ndiaye walaay bu ma ko déggee dama kontaan ba xaw ma ko côté. dëgg la ndeysaan. di ko ñaanal bonne continuation nag. sincèrement ba mu xam yaakaar ba muy xale la. dëgg la. di ko wax nag nekkoon àdduna li ci kanam. Mhm. dina métti trop mais na góorgóorlu. Mhm. su góorgóorloo rek day dem li ma gis ci moom bettu na ma trop trop trop. dëgg la dëgg la di kontaan ci yow bu baax. ok <laughs> merci beaucoup ko nga xam ne mooy Binet Goudiaby nee na bu mu lay xam jaww yàgg na du tey euh, bi ngay gën a nekk xale donc nee na bu mu la gisee dafa tiit. dafa euh, dafa da nga koo bett. bett boo xam ne mbégteel la ci moom ñu koy jaajëfal bu baax kooku Binette euh, Goudiaby mention très spéciale à toi alors euh, ñu delluwaat ci live bi tout parce que ñuy dans King Détente Live aujourd'hui mercredi 2 euh, mai 2018 si vous venez de vous connecter sachez tout simplement que je suis j'ai là et je suis avec Diaw dans Détente alors Diaw ñu dem doxalal ñu dem mon beau technicien mon beau technicien mon beau technicien mon beau technicien et toi là-bas viens ici mon beau technicien deux à deux s'il vous plaît mon beau technicien. Nissan. Bam dan dan dan. Ma belle technicienne, ma belle technicienne, oh. ma belle technicienne, ma belle technicienne, et toi là-bas, viens ici, ma belle technicienne, deux aveux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah. la clé de m'a à la promenade. j'ai trouvé l'eau si claire que je me suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Hey! Et quoi? Dun, Je suis sage, je suis sage à ma place à ma place. Les mains sur la table, les mains sur la table. Je ne bouge plus, je ne bouge plus encore. Ta, ta, hey. ta da da da. Ah. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Eh, eh, eh. Yo soy un hombre sincero. ¿De donde creen si las palmas? Yo soy un hombre sincero. ¿De donde creen si las palmas? cantamos versos del alma. Guantanamera. Aleya sí. Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Hey, hey, eh, eh, hey, eh, hey, epa. Les didistes sont à l'écoute. Love sur vous. benn janxa bu of noob i am not benn janxa bu ma noob lool seen You do tudd wax ñu tur bi wax ñu tur bi wante yaayam noobu ma dara yee xale bi nga noob lu mu tudd wax ñu ko you are me nata you are me nata Eu aminata lala Sumanya we sen kar Sen yai dakama kamaluta Sumanya we sen kar Sabai dakama kamaluta Now in a bell mom to sala Chilana when a bell mom to sala I'm the Bene Jacob woman Listen. Man, Chili, chili, chili, dem na. Listen. You la dem na. Hey, why? We do the hour, we do the hour, we do the hour, we do the hour. gonna na na legend. ndaanaan lay jiin yow Angel ndaanaan lay jiin ndaanaan lay jiin non dama leen may xaalis de li ngay def dama leen may

le plus important dans la musique pour moi, c'est que bu parce que voyager. Mhm. nga am sensation way mbalax. Mhm. suba nga am sensation way R&B am sensation way rap wala blues wala salsa. Mhm. parce que ay musique la ah. Et te musique da nga ci quand tu te réclames artiste pour moi, tu dois être prêt pour tous les styles. Parce que li nga sentir rek. exprimer mm-hmm, mm-hmm. et avec la variété parce que bon après relève bi. Mm-hmm. liñ pas pas parce que xam nga di jouer ci hôtel yi mm-hmm. jouer pour Tobabi, yi di pour nous, ñu animer ñun sama mm-hmm. Mm-hmm. et on s'adapte en fonction du milieu dañuy ñëw toog parfois ma xool ni clientèle bi fi ay dëgg parfois ma ñëw comme toog ci resto bar yi jouer ñëw gis boy parisien rek wala ñoo fa ñëw nouvelle génération bi style arène rap bëgg trap ma def trap parfois ñëw mu dugg salsa yu baax wala mu dugg ñëw xam nga ngéwale parfois nga ñëw foo xamante ni fii mhm. dañuy sàllal ni ko waaw ma daal di summi yére yëpp teg na la sol yére ngéwal gi rek daal di daal di daal di dem <laughs> xam nga <laughs> alors euh, émission bi mu ngi dem ñu ngi waajal euh, egg ci li nga xam ne mooy fin wu émission bi Diaw euh, lan ngay wax musicien Sénégal lan ngay wax say fan lan nga lan mooy loo xam ne danga leen koy yebe bon li ma leen yebe mooy dama koy yabal sama bopp d'abord dama koy maanaam njëkk a conseil sama bopp. Mhm. nañu liggéey. dëgg la nañu liggéey certes nag musique dafa metti mhm. parce que fi ñu toll nii tey marché amatul. Mhm. te musique la musique c'est les moyens. boo amul moyen. doo dem ëppal talent ci àdduna bi. mooy waral souvent Sénégal dañ fiy gis muy man ak samay moroom ak ñeneen. buñu ñu amoon tey ku leen pousse. tuuti rek talent bi tuuti rek. bu ñu leen mhm. amoon parce que ay Wizkid ay Davido ay ñeneen ñeneen ñi fi ñëw. Mhm. seen industrie moo gën a dox suñu industrie. Mhm. seen marché moo ëpp suñu marché. te dañuy am ay maison de production yu nekk seen ginnaaw. fi Sénégal malheureusement. Euh, voilà on voit plus les producteurs. c'est rare nga gis fi yenn maison de production yoo xamante ni tey dinañu mën a jël porte ñu. pour nga mën a dem concurrencer à l'extérieur mm-hmm. parce que bari na ah, muy man ak samay morom mm-hmm. des yoo xamante ni ils chantent sur plusieurs langues dëgg la dañuy woy olof anglais et tout ça bourré mm-hmm. de talent yoo xam ne style bi gars di def le style Naija que ça soit muy afro muy blues muy leneen ak leneen am nañ tey fu ñu mën a jël musique bi yóbbu ko mu génn un peu partout. Mhm. ci àdduna bi. mais malheureusement on n'a pas de maison de production. Mhm. yoo xamante ni ñoo ñuy épaulé ñëw teg yow liñ la sant mooy ay création ay composition. tey mhm. je te dis musique fi mu toll. y a des artistes texte bi ñuy way sax dañ leen koy bindal. bindal tout est calculé. même boo mënul way. ñoom li ñu soxla sa image la ñuy jaay dañ lay jël def la comme marionnette ben genre marionnette lepp mhm. ñokoy gérer mhm. et euh, le public sûr hein. mhm. ñom ñoy voyager un peu partout parce que amna ils ont déjà tout maison de production ñu ngi fi da ngay ñëw di nga am coach vocal di nga am ku la bindal sa texte di nga am ku defal li ñom ñu jël ils n'ont qu'à venir sur scène et assurer et après il lepp la ñuy jël ils emportent tout sur leur passage. Mhm. Sénégal tey relève bi ñu soxla pour ñu mën a génn concurrencer. Mhm. ñi nga xamante ni ñooy suñuy papa ak suñuy yooyu fi ñu tegoon musique bi ñu ñu jël ko gën a buux. gën a buux gën a am benn culture générale. Mhm. gën a jàng bañ a ci benn style. gën a def ay recherche. gën a continuer di pousse. nga xamante ñun bu ñëwee ñun dañuy neex a jàppale dinañu pousse. da di ñëw mais un conseil que je donne mooy. Sénégal la ñu nekk. Mhm. nit ki li nga bëgg da nga ciy nekk. ba keroog keneen di la ci fekk. Mhm. boo toogee rek ni dañ may jàppale. Mhm. du dem mus a jàppale. te du mus a dem. da nga ciy nekk. ba affaire yi nekk ci. ñoom ñu ñëw buñ la ci fekkee ñu jàppale la. dëgg la ku ñëw nga dem. ku ñëwul tamit nga continuer même si tu avances. benn pas. par cent ans sax. au moins nek ci. nek ci wa moy li wa dara ji di wax bul xaar looy def. def ko deug la lu la ci fekk moy lolu mhm. d'abord c'est la passion. Mhm. d'abord musique foog nga am amour bi foog nga bëgg ko. avant mhm. leneen di la ci fekk. dagguma la ñu gis ne euh, Diaw Diop day nek souvent ak Yoro Ndiaye. waaw question boobu mom ba ma ko laajul woon tey boo ñibbee xam naa la xoj bon <laughs> comme euh, j'ai eu la chance. ma côtoyé ko waaw. parce que comme je dis nit ku nekk de part li ngay joué. di nga ci mhm. am koo xamante ni peut-être dina am ñu bari dañuy wax da nga ndróog yoro mhm. ñii neneen ma sa doom la ñii neneen sa lii la mhm. da ngeen ndróog ni ngay ne waaye lépp à chaque fois man je me dis que yàlla moo koy def relation boo xamante ni dafa ñëw naturellement pas que dama jóg sol sama daal dem wëri ko wala moom mu jël sol daalam dem wëri ma yàlla moo def may yàgg di dem ci ay soiréem mm-hmm. ñu commencé di xamante su ma ñëwee soirée mu lonki gitaaram jox ma yéegal ma sur scène mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que comprendre man tamit su ma amee samay projet ñëw wax ko ne ko grand lii depuis bi mu ubbee studio ba léegi tamit xam nga tànqamluwul kenn muy man di sama morom di keneen donc avant toute chose relation entre grand frère la ak petit frère bien vrai que voilà tey ñu bari peut Euh, léegi lañ ma découvrir gis nañ ni man ak moom parce que ci single bi ñoo ci collaboré man ak moom mais du léegi rek yàgg na mm-hmm. yàgg na mooy continuer di jouer ak sama orchestre mm-hmm. teewul suñu ñëwee ba daje ma ñëw wala fu mu tegee ma ñëw fa ma mm-hmm. may tamit nekk ci li may nekk ba tey yàlla def ñu yegg si fii euh, single bi mu jàpp ci na ma ñëwal sama studio ma ñëw studio am seet si ko ñëw wax ko sama projet tànqam lu ma kon c'est grand boo xamante ni du ko remercier voilà. Mm-hmm. ok euh, <laughs> ok merci beaucoup c'est la fin de cette émission 15 hein, heures passées de 25 minutes nous, euh, avons place bi rek places di koy DJ Cool DJ Cool. <laughs> est-ce que tu nga chante bien. Euh, non non non il très bien. il chante excessivement bien. ah kon kontaan nga si moom. et eh, eh, d'autant plus il a une belle voix. Hein. euh, c'est euh, li nga xamante ne. c'est mhm. pas évident. Deug la mën nga nek way kat mhm. mën a way. mais baat mom yalla mo koy. maye dëgg la dëgg la maa ngi doon déglu sama kër. mais. Elle a, il a réussi à chavirer tous les cœurs de bonheur. Bimi, ouais, euh, Bimi reprendre la chanson de Akon. Akon, wow. Ah, bon, mhm. maa ngi doon quoi. waaw y'a ngi doon dàggu di def ndànk ndànk di ñëw ci merci beaucoup alors mon Icon émission King Détente live aujourd'hui mercredi avec Diaw Diop Nous euh, remercier ñëpp ñi nga nous ne ñoo ci euh, ligne bi ñi nga page Facebook tout ce qui était connecté Nous leen di remercier bu baax Diaw ma nga remercier nga dali di live bonheur. neex ñu dem. bon. danga may permettre ma may sant. Mhm. ñi nga xamante ni dañ ma bëgg rek te yàlla tax. dëgg benn nit bu la bëgg. Mhm. jar na ba dee. Mhm. Euh, te yëg-yëg dafa fort. man je me dis que nit ñi tey kenn moomu leen. du xaalis du dara. mais nit ki bàyyi benn minutam rek ñëw ne la jaw dama am cofeel ca wala li ngay def neex na ma kooku amuloo fayam. fayam dëgg la kon les didis. dem dama joué ji. ñëw fekk leen ñu dajaloo ñëw sama gaale toog. ma ça sama carrément touché parce que bon man comme je dis j'ai pas des fans. Mhm. mais j'ai des amis. dëgg la mhm. kon damay gërëm ñëpp. di mhm. sant ñëpp sama xarit yëpp. du ma wax fan si ñëpp ñi ma bëgg ma bëgg leen xam leen ni. lu ngeen ma bëgg benn. bëgg naa leen lu ko raw dëgg la di gërëm waa Cambérène bi ma jóge fa dëkk. di leen tiitaroo. di gërëm Sénégal ñëpp. di leen wax ni nag nañu wàcc. bagage ñu ngi ñëw. d'accord te comme que dama leen bëgg. Uh-huh. su may tàggatoo ñoom laay wayal. moom ngay wayal alors je te rappelle que aussi la famille basse des HLM Grand Médine ñëpp ñu ngi seen ginnaaw gars yi di bëgg a woote mais mënuñu dugg Germaine Chichi ñëpp gaay yi yëpp ñu ngi sa ginnaaw alors on termine avec Diaw Diop au revoir. man bëgg na ma leen aha Sénégal yi man bëgg na ma leen bu dee Diaw Diop ngay bëggee fii laa la def. Să feke manegi să hol filale def Să feke man mai wenga contan Să feke bun ma wakili nyam betila Să feke man manege ji să bir hol filale def Filale def Anda biar kenalı ya kuda gula Gendi maya ku jom fit ak fula batahna Lop masongu madanel ko yena mengem Yeah. Dominator left me la tambali won Mai fadi dem ci kaw yena ma dole lon bobu legi di diste yi ñongi fi di ma pousse di ma pousse ramasi xam nga fi la la def bu dee jaw jëm ngay bëggee fi la la def I fekkee maa ne ci sa xol fi la la def su fekkee man may wey nga kontaan fi death. In def IFM